ndax Sénégal mën na am yaakaar ci ndawam ci ëllëg Sénégal nga xamante ni si dañ koy bàkkee ci seeni ko ndaw nga xamante ni am nañu yaakaar ëllëg waaye lii ñu tàmbalee gis ci réew mi boo moytuwul nag fa muy jëm ñeex du fa sax dëgg la kay xale yoo xamante ni si ci jamono ji fa ñu waroon a toll mooy dem ca l'école ya dem jàngi wala dem ca daara ya toog seeni wetu waajur ñu leen di yar yarin woo xamante ni si ba ëllëgee dinañ ci am éducation bu mucc ayib waaye lii xew ci jamono jii yéeme na lool teeg ñëpp a ngi ci teg seenu bët waaye kenn àddu ci ndax ndaw ñi ak gone yi ñu dugal ci làmb ji di leen bëreloo ak a defloo yi fi caaxaan munees nees nañu cee am ci ñoom yaakaar ëllëg ñu doon ndaw ñoo xamante ni ci ñoo war a yor réew mi yaakaaruñu ko ci jamono ji nga xamante ni yeneen réew yi ñoo ngi tàggat seen ay gone di leen yar ngir bu ëllëgee ñu mën a taaw seenu réew doon ay gone yu am jom ay gone yoo xamante ni si dinañ tekki dara waaye ci jamono ji defuñu loolu li def mooy leen bëreloo di leen defloo yu ñàkk fayda ak loo xamante ni si jëmewul dara ci boobee jamono ñëpp nag ni parti pataaran muy dem ba Balde wala Zikri ak ñeneen ñoo xamante ni ñu mel daanaka booy xool ci réseaux sociaux yi lañ leen di exposé di leen defloo loo xamante ni si du jëfinu xale xale kat am na luñ ko doon sàmmee xale kat. am na lu ñu ko doon bàkkee waaye ndeysaan réewum Sénégal loole wonni na xale yoo xamante ni si ñu ngi ci mbedd mi xale yi ñu leen di foloo xale yi ñu ngi leen di fecciloo xale yi ñu ngi leen di woyloo ci boobee jamono sax nag mënoon nañoo toog jàng seen leson ba xam ca dara te lépp nag booy xool ci banlieue bi lay xewee te banlieue bi ku leen tudd nag ñu mer ba futtu te lépp nag lu ñu leen di wax ñooma bu ñu leen waxee wàllum calte ñu ne banlieue bu leen waxee wàllum insécurité ñu ne banlieue bu leen waxee wàllum woy ñu ne banlieue wàllum fecc ñu ne banlieue wàllum caaxaan ñu ne banlieue fekk itam loole dafa di dëgg ndax booy xool li fiy xew yépp banlieue lay xewee insécurité gi fecc gu bëri gi làmb ji lépp ñu transféré ko banlieue mu mel nii ñu dëkk banlieue amuñu cër ëllëg ngir yor seenu réew wala doon loxo yu set yoo xamante war nañoo réew mi waaye tànk yi ñuy doxee yaakaar amul ne bu ëllëgee daanu mun a yor réew mi ndax gone yi nanguutuñoo jàng gone yi nanguutuñoo jàng métier ñu ngi ci sareet yi ñu ngi ci làmb ji ñu ngi ci mbedd yi di fecc insécurité bi agressé te loolu lépp lu koy indi mooy ñàkk éducation responsabilité daanu ko ci constitué laataa ñu yegg ci li nga xamante ni si moo di état daañu njëkkee ci li nga xamante ni moo di waajur yi waajur yi yàlla dénk njaboot ñoom ñoo war a saytu seen ko doxalinu ko njaboot waaye ñooñee ñoo njëkk a fayir seeni ko mission seen ko responsabilité ñu tegee ko nële te kenn du ci wax état bi nga xamante ni si moo war a aar ñëpp war see jël ay motuwaay jël si ay règle jël si ay loi teg ba képp koo xamante ni salfaañe nga ak ak yelleefu gone yi ñu daan la waaye xamante ni te tiit na lool ci jamono ji lii nag buñ ci jëlu pexe fa muy judd wala fam ñuy yóbbu ñax du fa sax balaa boobee nag ñu gaaw àddu ci kilifa yaa ngi ci ñëpp a ngi ci te mbinte am na ci gone yoo xamante ni si ñoo ngi def ay jaloore di def ay recherche di créer dara kenn du leen fulaal ñuy fulaal kay mooy fokkat yi te jamono ji nag tolluñ foo xamante ni dañ fay foyee réew mi dafa tollu ci diggante réew mi dafa yaakaar ay ndawam te ndaw yooyu nag ñu war a futteeku dem xooli nees war a def rek bu indi saafara booy xool misaal yeneen réew yi gone yu bëri bu ñu xëyee ñu ngi ci yoonu école bi di jàng yeneen réew yi boo xoolee yeneen ñu ngi jàng métier ñii ñu ngi leen di tàggat ngir bu ëllëgee ñu mun a doon ñi yore relève seen réew waaye ndeysaan Sénégal lenn lañ lay bàkki lenn ngay amee buzz mooy nga nekk ci réseaux sociaux di fecc nga nekk ci réseaux sociaux di way wala di def yëfi caaxaan mu mel nii sax caaxaan boobee moo gën a doon am fula lii di jàng ndax gone yu bëri nangootuñu jàng ñu ngi ci tiktok bi di ut ay live di ut ay abone di ci xuloo di ci dagga santé ci jamono ji nga xamante ni si waroon nañoo toog uuf seen leçon di jàng waaye loolee dafay mun a ne bu fekkente ne am nga ay waajur yu responsable mais malheureusement waajur yi léegi daanaka ñoom ñëpp a dégager seen responsabilité seen doom boo ñu ne dëkk bi dafa metti doom yaay daay xëy wuti bàyyi xëy wuti mais ma ne deet loolu warta mën a doon benn alibi ndax jamono ji mosul neex te ñi fi nekk tey jii yaru seeni waajur mosuñoo yor mosuñoo am mais teewul teg nañ seeni koy njaboot ci éducation de base boo xamante ni si kenn mu ne su ko weddi kon tey ngelawaay Sénégal nañu takkaat seen tubéy Sénégal nañu waggasaat seen loxo mbubu ba ëlbatiku joyante réew mi jaarale ko ci ndaw mi waaye de lii ñu gis nii ci xale yi ci mbirum pont mbirum fecc waxu teggi ni ñàkk yar gi lii de bu dee moo wéy Sénégal nag bu dee ci ay ndawam la yaakaar bu yeboo nag mu xam ne mbir moomee mënut a sotti ndax lii dafa doon loo xamante ni ci kenn mënu ko qualifié état bi nag lañ ci interpellé na ci gaaw jël ay matuwaay ndax kat Sénégal day essayé buñ ko waxul dara day continuer ndéem tàmbale na nii bu amul kenn ku leen interpellé nii lañ koy wéyalee di jël gone yi di leen dugal ci làmb ji di leen def looloo xamante ni naka ci noonu. te ak ak yelleefu gone des ko wara a respecté respecté boo xamante ni si mooy nga iir ko yar ko jàngal ko mu nekk xale bu am jom ba bu ëllëgee mu doon mag boo xamante ni si dafay am responsabilité ci réew mi waaye day lii ñu tàmbalee gis ci po ak caaxaan jëmale ko ci gune yi yaakaar naa ne buñ ko yaakaaree ngir ëllëg ci réew mi bu yeboo nag ñu lem suñuy kaakate toog ci te xam ne nag ndaw ñi moom seen yaakaar ci ñoom ngir ñu mën a yor réew mi ëllëg yàkkeeku na gone guy yugur yuguri nekk ci làmb ji di fo ñu lay may xaalis di la caaxaan loo xam nga ne loole moom jëmul kër loo ca wax nag ñu dëkkale foo xamante ni dëkku ca waaye nag dafa di réew mi toll na foo xamante ni dañ ko war a jubanti war koo jaarale ci ndaw mi bu ñu ko deful nag ndaw ñi danañ sànku ji te bu ñu sànku jee mooy réew mi sànku nañ bu ëllëgee ñeneen ñoo fi ñëw jël suñuy réew jërë ngeen jëf